te beneen combat ci poids léger ba ba tey diggante Quinze Ndangaan Boy Faye bu Guéréo Quinze Ndangaan woon ñu gannaaw Boy Faye bu Guéréo moom lañ jàkkaar lool wala Boy Faye bu Guéréo ngeen boo ngeen bulu bulo Quinze Ndangaan ngeen bulu Boy Faye Boy Faye da ngay jël avertissement Boy Faye jël na avertissement Boy Faye gerew Ken Ndangaan Ken Ndangaan laay na xay na laay taxawal génn bu gerew Boy, five bukan udah anak kendangan deh.